mbokk yi am nañu mbégte ànd ak yéen seen émission Kouthia julli ci euh, ñaan ak euh, jullit yëpp yàlla leen jàmm may fan bu gudd ak wér di sant yàlla di alamin di ñaanal bépp doomu aadama boo xam ne yaa ci réew rawatina kilifa diine yàlla yàlla sàmm fan bu a kawe ñaanal kilifa ñi nga xam ne dañu dëddoo àdduna yàlla na gën kawe ñi caabi féete ginnaaw rawatina suñu euh, jigéen ñi nga xam ne nekk ca campagne yàlla afal ba ñu dellu jigéen mënta nekk Sénégal te caabi féete ko ginnaaw yàlla na ko yàlla dimbali ba ñu génn ndax ñoom seen kër Euh, seen kër ci kër yi la ci néegu sëy la war ñu nekk ci bureau yi war a ci marché yi waaye du fi nga xam ne fa la caabi di féete ginnaaw yàlla na yàlla afal ba ñu delluwaat seen njaboot mbooleem jigéen boo xam ne caabi dala féete ginnaaw ñu ñaanal tamit ñi nga xam ne ñooy góor ñi féete ginnaaw tamit caabi féete leen ginnaaw yàlla bàyyi leen ba ñuy doxi seen soxla ànd ak seen sago yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def euh, ci na ko yàlla ko yàlla def ci weeru ramadan bii ñuy am mbégte di soxna ñanga moo ñëwaat tey ak riz patron bi nga xam ne mooy patron ceeb bi te xam ngeen ne nee nañ ne euh, patron ceeb bi bu ko doonee mooy boo nekkul patron sax boo ko lekkee da ngay nekk patron wallaay dëgg la jërëjëf Sine Samba oustaz Abou Bilal mu baax mu sell mi ñun yow rek la ñuy topp maa ngi nuyu kilifa diine kilifa aada di nuyu nag sama yaay yàlla xaree ko aljana ci barke Seydina Mohamed moom mboolem ku fa fekk ak ko fa fekk di nag sama yaay ji Nafisatu Diop notaire du ma ko fàtte di nuyu soxna Ayda Diallo mu di nuyu nag Assane Diop sa xarit bi mu ngi lay nuyu Assane Diop yàlla ko yàlla defal jàmm taaliba Sëriñ Babacar Si bi di nuyu soxnaam ku baax la Daba di nuyu doom Cheikh Ahmed Tidiane Diop moom la ko tuddee xaritam moom la ko tuddee yàlla ko bi ci Saalum barke yonent bi maa ko seet jënd bi jóoba jubba lu baax li def ci biir ci biir euh, Dakar defal ko say mbokk defal ko say nawle yi nga dëkkal ca Kaolack wallaay wallaay ko yàlla fayee Diop fóotal na nga baax ba bëgg a dee est-ce ne Assane lu la wax du dañ Assane Diop nit ku yàlla baaxal. lu la wax du deñ yal na yàlla guddal fanam. amiin jooba jubba. et puis li ma neex ci Assane. Mhm. dafa discret. dëgg la. loo ko wax. Mhm. doo ko déggaat feeg. laay ak a baax waxoo ko ne la a wax. ak a baax chéri daba Touré jooba jubba loo ko dégg tamit moo ñëw fekk wallaay dëgg la na yàlla bu ma ci jógee nag ma dem ci ceeb la patron parfumé. neex na sakkan na. ta sell na mhm. tey nag domoda bulet laay def damay def domoda rek def ko ñànkatang nga ko def def ko def 32 bulet am na am na bu ndaw. waaw sell na sakkan na te ceeb bi Thaïlande lañ ko bayee. kon daw leen jënd ko ku ne am nga patron sa kër comme daw leen jënd ceeb la patron ngeen di ko toggal seeni patron kon ceeb la patron. Eh, eh, eh, man tamit fàtte naa euh, Pape Estil. waaw moo la ñu grand bu bi waaw moo la ko ñëwal mooy lii bu patron. waaw ceeb la patron bi. patron bi nii. weeru koor ngeen nekk de kon mbokk yi am na ñu mbégte ànd ak yéen seen émission Kouthia Show gërëm képp koo xam ne nag yaa ngi seetaan joyeux anniversaire à Abdoulaye Sy chef de brigade Joal Fadiouth de la part de ta sœur Awa Sy et de ta nièce Aminata qui te souhaite longue vie santé et bonheur à Abdoulaye Sy joyeux anniversaire à Ndeye depuis Saint-Louis quartier Léona au claire clair longue vie et santé et beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à Agibou Diong et son fiancé Euh, Tening Ndiaye depuis Maroc longue vie santé bonheur à bu jong et Tening Ndiaye dédicace à Serigne Mam euh, Ngor euh, diwaan soppe Kouthia Serigne maam Góor Euh, diwaan soppe Kouthia moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram dédicace à maman Roqaya Naani Diop euh, euh, son bi boutique borom France yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram moom maman Roqaya Naani Diop suñu soppee boobu nga xam ne wax dëgg yàlla soppee El Hadj Abou raw rawatina ci waxtaanu koor ci yor yoru koor maman Roqaya Naani Diop borom sombi boutique foofu ca France dédicace à Fifi Dia et son mari Pape Saliou mbay ñu ko nuyu dédicace à Marème Thiam Euh, bi nga xam ne nag euh, euh, commerçante la depuis unité 3 ca Parcelles Assainies ñu ngi leen di ñaanal kenn du la jàmm waaye tamit di am mention spéciale di nuyu ki nga xam ne nag sama xarit sama grand frère di ko ñaanal jàmm ak fan bu gudd la ko dénk diis na trop waaye yal na yéen bi oyof ci kawam di procureur baaxum procureur de la république yal na yàlla gudd fanam di ko ñaanal di ñaanal soxnaam ak ay doomam yàlla sàmm leen sàmm seen sa fan commandant Fall tamit nekk foofu ci section sa section recherche bu Colobane yal na yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wérgu yaram waaye mention spéciale à procureur baaxum mi nga xam ne wax dëgg yàlla li ñu ko dénk diis na lool yal na euh, euh, yéen bi oyof ci kawam te yàlla sàmm ko aar ko musal ko ci cat nit ku yàlla baaxal la nit ku gëm yàlla jullit pire ngi nii baaxum na yàlla gudd sa fan mbokk ay rumeur la woon ñu naan am na nee nañ amul ndekete am na Idrissa Seck ay minuit deux heures de matin la yoxo su dem kër Sonko pour waxtaan ak moom waxtaan ba nag ndax bëgg ngeen xam wala bëgg leen xam sa Seck nag fexe na ba dugg ba waxtaan ba wax bi am benn jour muy soog a fuite gis nga bu ñu ko waxee dañu ne est-ce que am na ñu naan am na amul parce que organiser na ko d'une façon boo xam ne journaliste tegu ci bët te seen sennul waaye heureusement que Sonko lam fa wax ak ñoom ñaar ba wir mi génnee amul dara lu ci ñaaw léegi nag nañ dem xool indi nan la dóoree liñ yaa gaay yi bu dugg kër Sonko ak lu ko Sonko tonk ñu dem kër Idi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ça va bien. dama fi amoon rendez ak président Sonko. Sonko yow man. Ah. dama ci am rendez-vous man la président Idrissa Seck. ñi am rendez man la idi xam nga rek <laughs> taxawal nii wax la taxawal nii wax la xam nga journaliste dañuy taxawaalu kër buntu leader yi lu ñu gis dem netti lu ko na booy site internet yi dara du leen rëcc mais billaay wallaay taalaay man la idi <laughs> man la idi <laughs> la idi ah laay la idi xam nga boo deful nii rek. waaw boo deful nii. dañu lay dañu dañu lay dañu lay dañu lay bind ne ñëw na seet si Sonko te loolu laay bañ ndax li ma. waaw. baax na. waaw dama koy sumé. ah sumé tubay bi. ah. sumé samay portable ak portable kii. yow lii warul dugg fi. d' accord d' accord loolu mun nga ko ah. té téye ko rek <laughs> lii moo tax soo ko jotti moom jafe <laughs> su ma deful ni tourné tourné tourné. nii la de parce que bu fekkee ne da nga bëgg dara il faut nga def. loolu toogal na ah? la. ma toog fan amul sees. taxawal noonu ma hmm. maa ngi lay xaar. kii de moom def na boppam président ba pare <laughs> pour gis ko lii yëpp dana ciy daj waaye bu ma defuloon nii ba site internet yi ko ko dañu may jéebaane te li may dox si fii bëgguma kenn yëg ko waaw ñëwal. mën naa dem. mën naa dem waaw et sa bassin bi nag bassin bi. waaw bàyyi ko fii rek. bàyyi ko dama bëggoon làqatu rek quoi. salaamaaleykum. Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko déedéet Sonko Sonko. ba sonnoo si buntu bi rek. déedéet xam nga il fallait ma. ma sa sa sa garde corps bi nag. il est vraiment quelqu'un boo xam ne. Mhm. vraiment il est organisé. <laughs> Ah parce que dama ñëw wax ko ne ko man la indi mais gëmu ko ah. woon. parce que il fallait ma def maquillage bi xam nga rek. dëgg la dëgg la mais mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax. Sonko oui Seck Seck Seck Seck vraiment kontaan naa trop alhamdulilah yal na la yàlla defal jàmm. amiin amiin amiin kontaan naa trop waaw lii ma def nii nag tey. Mm, mm. dama bëggoon ñoo ñu waxtaan ci waxtaan bu gàtt. waaw ndax réew mi dafa am nu mu tëddee. Mm-hmm. te bu ma toogee seetaan rek mun nañu yaakaar ne ni mu tëddee nii man moom ma arrangé. Mhm, mhm. ndax xam nga maa ngi ci ba tey bennoo bokk yaakaar génnuma ci. dëgg te yaakaar baa ngi fa ba tey. Mhm. ma gisoon ne tak doxoon tànk jàmm laajte daal. xool yaag sa waay ji. nan ngeen mun a toogee waxtaan. <laughs> su ko defee ñu ut terrain d'entente boo xam ne dañuy xam ne ñun fii. ak lii ak lii ak nii. li la naqari ak li la neex ak li nga bëgg ak li nga bañ. lu ma fi jëlee dem yóbbu ko fa. Mhm. waa kay lu ma fa jëlee rek dem yóbbu ko fa ne ko sawaay lii laa wax moom. Mhm. bu fekkee li may wax ak moom nag dégg na ko mu jëfee ko. bu fekkee dégg ko nag moom mooy xam. mais l'essentiel mooy dama dox tànku jàmm daal. macha allah waaw kay loolu wax ne wax dëgg yàlla bëggoon dégg ci yow. Mhm. kàddu yoo xam ne su ma demee dinaa na ko ah man de seeti naa sawaay. te nag joxuma ci ndigal nag man maa ko def. dëgg xam nga ne juróom-ñetti fanu koor gi. tawxiid mm. ci jamonoy yonante bi daan nañ wax ne ku ciy dox tànku jàmm at yi yow yàlla mën na laa dimbale ba loo ci ut nga am ko. macha allah macha allah macha allah <laughs> Sonko sek <laughs> sek vraiment damay rafetlu say kàddu di la wax ne man Sonko kenn xamee moo waxe ginnaaw man lépp lu may wax damay bëgg ñëpp teewee ko ma wax ñëpp dégg. wallaay mooy yoon man bëgguma di wax si ginnaaw nit. wallaay wallaay. mais euh, sa waa mm-hmm. dama bëgg. mu xam na ne moom man nangu naa ne mën na joxoñ keneen mu bokk mais man bugguma moom su gëwma moom mu bokk daal warul bokk daal hmm. waaw warul bokk warul moom si boppam warul bokk si élection yi di ñëw waaw man nag man maay wax kii bokk ak ki dul bokk waaw mais moom warta bokk moom moom warul a bokk hmm. waaw hmm. ak lan lu la metti waaw baaraamu tuuma yi ñu may teg mhm. man loolu laa bëgg ñu teggil ma ko mhm. parce que ku xam Sonko xam na ne kat si jaamu yàlla wax ndànk def ndànk mhm. man kenn xamee ma ay parax parax ax ah, duggalu sama yoon nekkul. <coughs> wallaay azim. chaque jour nag ñu ngi may waxal loo xamante ne tey ah jëfewu ma ko du sama jikko waaw. kon nag baaraamu tuuma yi ñu ma teg man laa bëgg ñu teggil ma ko ba mu set wécc d'accord li gis nga li nga wax noonu mhm. ni ma ko waxee dinaa ko ko wax mhm. waaye loo gis waxtaat la daal waxtaan na mhm. ndax man mi wax ak yow léttu guma ma xa olof njaay naan létt ma mbaa nga firi ma <laughs> létt ma xam nga fu mu ne nii daal li ngay wax nii daal mooy maanaam moom mu bañ a bokk même bu bokkul keneen bokk <laughs> maanaam. man bañu ma. <laughs> xam nga man position bi ma nekk maa ci benn. waaw loolu moom. <laughs> moom bu bokkul rek. a bokk. moom am na droit nekkat indi beneen nitam bu bokk loolu kenn bañu ko mais moom si boppam laa ne moom du bokk. Hmm. est-ce que yaa ngi may dégg bu baax ko ku xam état nag. ku xam moom ku xam état d'accord. wala mu xool keneen ku ko neex bu ko neexee sax mu xool ku xamul état mu teg si mu teg ko mais moom si boppam warul bokk. waaw kay. waaw waaw li nga wax nag rafetlu naa ko de. wax nag rafetlu naa ko de. ko mm-hmm. li nga wax nii. waaw warta bokk boobu. Mm-hmm. rafetlu naa ko parce que sa wax la. waaw kay waaw kay. Mm-hmm. te ku bëgg nag wax dëgg yàlla. te moom mu bëgg. man it lu yàlla xam doy na. maa ngi yooyu wax. waaw kay. kii moom. donc kii moom garde corps la parce que instant yi dégluwuñu waaw mhm. Mhm. waaw parce que mën naa ne mën naa nekk <laughs> yàlla daal waxul kenn dara waaw comme que ñëw naa ba gis la mhm. bu soobee yàlla maa ngi lay gërëm dafay xaw a guddi nag te xam naa maa ngi dégg ñuy waajal waxtu bi waaw waxtaan bi yàgg na lool jële naa ci xam-xam nag waaye di wax nag wax dëgg yàlla Sénégal benn bopp la buñ ko yàq nañ ko defar ku ñam jox sa morom mu ñam ñëpp ñamandoo mm. waaye ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñamale rek. <laughs> Sonko. <laughs> jërëjëf parce que boo gisee nii la mën a demee. Mm-hmm. parce que àdduna. Mm-hmm. nit ku ne dina ami noonu Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam moo fi ëppoon ay noonu. xam nga sa diine xam lu ma gën a neex ci yow. sa diine fi ngay cofee. maag yow bokk jikko mu ngi noonu nag xam nga bu ñu waxee tawxiid mm-hmm. wax tasawuf wax li nga xam ne mooy di di ni ko jikko doomu aadama yi loolu mooy royukaay yi mooy royukaay yi il faut nga am complémentaire ci doomu aadama réew boo koy réew boo koy gérer da nga war a xam li yàlla bëgg mu ngi li yàlla bañ ndax ñun ñëpp ëllëg yàlla daf ñuy laaj nag ngeen doon doxalee mu noonu nag te ab buur nag yàlla koy tànn <laughs> macha allah macha allah wax dëgg yàlla wallaay wallaay wallaay eh. parce mm. yàlla def na tey. Sonko. <laughs> Seck Seck parce que yàlla def na tey. Mm. ñun dañuy yëngu si diine bi bu baax. Mm-hmm. moo tax chaque jour rek dañuy xam fu ñuy teg suñu tànk mm-hmm. ak fi ñuy waxee ak ni ñuy waxee. kay waaw waaw kon nag tey yaa may jiite. Ah, non déedéet yow yaa may jiite fajar yaay sama mag de. déedéet xam nga fajar gi dama bëgg nga jiite ba xaw man saar laa nam. Uh-huh. aram kay fa. <laughs> indaale naa woon si jaadu tax. yaa may jiite de déedéet yaa may jiite xam parce que yow mbooloo nga am. Mm-hmm. te nee nañu lislaam bi dafa ne. Mm-hmm. Eh, julli àjjuma na mbooloo bi gën a yaatu barke bi gën a. waaw loolu moom dëgg la waaw kay te yow sa sa sa mbooloo macha allah. mais yow sama mag nga. waaw sama kilifa nga bàyyi ma la nga jiite. waaw bàyyi loolu bàyyi ma bàyyi la nga jiite rek mooy xam xam nga nag yow sa alam tara kay fa war na mun a neex. <laughs> waaye kontaan naa waay vraiment àddina nii la wax dëgg yàlla kontaan naa trop. ndax eh, ba waxtaan bi fii lay yem rek. ah waaw parce dara loo xamante ne tey dina mën a génne. ok jërëjëf li ma la mën a wax daal mooy. Uhuh. man samay wax. Uhuh. lépp lu may wax moom. damay bëgg di ñëpp. wax wax nga wax nga dëgg ma solaat yére yi parce que damay génn <laughs> waaw nga de ah, waaw bi may ñëw lii laa sol ah. Jakarta sax laa yéeg bi may Jakarta <laughs> moom kay gis nga réew uh-huh. li nga wax la li nga wax moom lu la lu moom war ta waaye keneen mën naa ko waaw kay nekk ci benn <laughs> boppam daal na xam na ne moo ko dina ko dégg waaw moom ci boppam na xam na ne waaw moom mënu la bokk mais keneen ku mu joxoon ne war na mën a bokk kooku dina bokk waaw incha allah kon am si jaada bi non yow déedéet bàyyi ñu dem nga jiite te bàyyi ñu jiite la xam nga jiite bi damay bañ nga xam ne sama baax ndax mu ne bisimilahi rahmaani rahim hmm. alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ida ngay jiite <laughs> sonko sonko sonko sonko kontaan naa vraiment wax dëgg yàlla kontaan naa vraiment kontaan

yi am nañu mbégte ànd ak yéen seen émission di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan rawatina nag ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew di bàyyi xel émission bi yal na yàlla defal jàmm nuyu nañ tamit ki nga xam ne nag mooy euh, Fifi Dia et son mari Pape Salim Mbaye waaye tamit euh, di nuy maman Rokhaya Nani Diop sombi boutique foofu ca France ah Sacré Cœur ah ah borom France waa Sacré Cœur borom France maman Rokhaya Nani Diop Sacré Cœur euh, ca la dëkk borom France borom boutique sombi yàlla ko yàlla hommage à suñu yaay ju baax ji di ajaratu Juma Jeng Jaxate yàlla ko yàlla dafa jàmm ambassadrice des cas sociaux moom ko tuddee yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram at bu nekk day def ay social jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy nekk ci tëngéej ba mu fekk baax wax dëgg yàlla suñu yaay ji yàlla yàlla gudd fanam ajaratu Juma Jeng Jaxate yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram ci hôpitaux yi ci morgue yi ci mosquée yi biir màkk yi ci poste de santé yi wax dëgg yàlla euh, moo ci def li nga xam ne nag moom mooy euh, social ba Euh, ñun euh, ñu gis ko ci ràññee ko ci rafet li nga xam ne mu ko ci def mu war a doon royukaay nag ci ñi nga xam ne tey yàlla may na leen tuuti ñu yor ko jëmale ko ci ñi nga xam ne mooy sa gox bi nga juddoo fekk fa baax fa nga war a njëkk tàmbalee ndax ko defee feneen du safee ndax ña nga dëkkal ñoo mën a seedal sa social ajaratu juma jëng jaxal yal na yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal jàmm ko ñaanal tamit yàlla defal ko ay xéwal yu bëree bëri bëri bëri ci àddunam ndax lépp lu am rek partagé na ko ak ñi nga xam ne nag moom mooy sénégalais rawatina fa mu fekk baax euh, di tëngeej Euh, man nag euh, tuddee naa ko ambassadrice des cas sociaux ndax ku sa xonk boo jàkkaarloog moom mu daal di koy faj waaye boole askan bi yëpp daal di leen taxaw yal na yàlla gudd faram ajaratu jaw ma jëng euh, jaxate yal na ko yàlla may fan bu gudd jaraaf Ibrahima Ndoye bu sëriñ Babacar si moom tamit suñu soppe la ndax soppe sëñ Babacar si la te xam ngeen ne wax dëgg yàlla sëñ Babacar moom dafa nekk koo xam ne nit la boo xam ne foo ko tudd rek murit ak tijaan ak laayeen ak chrétien ñëpp ko bëgg ndax jaar-jaar yi mu a xam ne nag def na ko nee naa ne nag yem ci naan sëñ Babacar si borom borom kaare rek tuutee tuuti waaye sëriñ Babacar Sy wax dëgg yàlla xam-xamam ak cofelam ak ci Seydina Mohamed paix et salut sur lui jégg na dayoo moo taxit moom dañ koy ñaan moom euh, euh, ki nga xam ne moom mooy euh, jaraaf Ibrahima Ndoye cofet bi am si sëñ Babacar si yàlla ko sëñ Babacar si taxaw ci lépp moom jaraaf Ibrahima Ndoye bu sëriñ Babacar si yàlla yàlla gudda fanam bébé a bébé maam Koumba Ndiaye Médina rue 3 tey la anniversaire moom bébé maam Koumba Ndiaye Médina rue 3 angle 16 de la part de Omar Soare qui te de grandir en âge et sagesse à bébé maam Koumba Ndiaye Pa Daour Sarr longue vie santé Euh, de la part de toute l'équipe de Kouthia Show moom ki nga xam ne mooy Pape Doudou Sarr Pape Doudou Sarr doomu ñanga waaw Pape Doudou waa Pape Doudou euh, démb la waaye tey ñu ngi ko koy souhaité yaayam ña koy souhaité happy birthday to ñoom ñëpp nag ñi sant Thian ak ñi sant Sarr ak ak Kouthia Show ñoom ñëpp ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla defal ko jàmm defal ko tamit salaam Pape Doudou euh, waaw moom mooy euh, président fan Omar Réew nee na nag Omar Réew namu na ko lool ndax ci koor gi gis ko kon Pape Doudou ñu ngi lay ñaanal jàmm te Omar Réew dina la indil cadeau dédicace à Mbène Amar depuis Washington borom Darmanko shop nekk fii ci Padoua Buldeuse di jaay ay produits cosmétiques ak alimentaires venant des États-Unis Darman Call Shop ku fa dem di nga gis lu baax ak lu neex yalla ko yàlla defal kendalu jàmm disparu euh, kii tamit dafa réer Abdoul Aziz Ba doomu Kumba Ba ki nga xam ne mooy sama mbokk jorof jorof di soose njaay nekk ca njaxira moo ma ko jox xale baa ngi nii ku ko gis yàlla ko euh, yàlla def mu gën a mu feeñ ci nu mu gaawee après nag euh, suba incha allah dinañ joxe numéro téléphone bi waaye ku ko gis nag mun nga ko indi fii ci TFM wala nga yóbbu ko ca RFM boo fa demee nag euh, di nga am ay gindi yu leer moom ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Ba war nga yóbbu ko ci njaxaret boo demee njaxaret nag foo laajte imam Ah, Socé Ndiaye foofu ci jaxarat ah, di nga ko gis waaye war nga yóbbu ko RFM wala TFM boo ko fi indee dinañ ci gindi ay gindi yu leer mbokk yi. Ah, dañuy def la ndogu du gouvernement et de l'opposition bés bu nekk ay bés bu nekk dinañ jël kenn ci gouvernement bi wala kenn ci opposition bi bu daadee ñu xool nan lay ndogoo këram ak moom ci santam bi mu sant lay ndogoo wala moom ci melokaanam lay ndogoo dañu koy tàmbale ci ki nga xam ne nag moom moo yor intérieur dëkk bi. xool moom ci këram lan lay ndogoo moom ministre Antoine Diome bu nekkee ci këram wala bu nekk ci bureau heure dog jot fu ko fekk ndax day dagg liggéeyam dem dogu wala fa mu nekk lay ndogoo ndax ndog ku nekk lay fekk fu ne la lay mën a fekk mën na la fekk ci yoon nga duraate naan kafe mën na la fekk sa bureau mun na la fekk sa kër waaye nag li ci ëpp comme que ñoom dañoo nekk ci liggéeyu nguur ki ñuy jëkk jël tey suba dañu dem seeti Maître El Hadji Diouf muy ndogoo ci biir Kouthia Show tey ki ñuy jël mooy Antoine Diome ñu xool nan lay ndogoo ci biir biiram la ko fekk ñu seete ko allô madam madame jom ça va bien ça <laughs> jege ah waaw léegi heure bi jot kay. heure baa ngi jege laa te dama am ay audience yoo xam ne dama ko repousser sax pour euh, deux heures de temps xam nga dix neuf heures vingt cinq la ñuy doog. ok maa ngi donc à part de vingt deux heures laay recevoir at. Mm-hmm. waaw léegi euh, euh, Kénkiliba bi. waaw waaw jox ko chauffeur bi mu mu départ léegi il est dix huit heures. waaw teg naa ko ndax xam naa da nga bëgg Kénkiliba. waaw. waaw léegi mburu bi ah. mburu bi yëpp da ngay kilo eh, beneen kilo bi nga def ci mayonnaise feneen bi nga def ci thon. ah tuuti kaane rek ah. ah mais na ko emballé quoi pour chauffeur bañ a xam quoi. ah na ko emballé na ko castré ah. baax na waaw c'est pas parce que dama ko wóolul mais xam nga rek xam nga am na boulet. na boulet yu saf. defaral nga boulet ah. waaw defaral naa def ci boulet dégg nga. ma def ci soosu boulet bi. noonu rek après dama ci def beurre. Ah. xam nga soos bi ak kaane bi nii la. Ah. waaw waaw Uh-huh. nambe bi nag. waaw uh, kii uh, kii uh, allo. allo mbaxal bi ma la waxoon. waaw togg naa mbaxal bi ba pare. mbaxalu lan la baadu Saalum. mbaxali xombal. <laughs> mbaxalu xombal bi. waaw mbaxali xombal laa intérieurement na saf ah? waaw dina saf saf saf na saf ah? dina saf saf. dégg nga mais mu bañ a pimenté quoi. waaw d'accord du ma def kaane bu bari. tuuti ah, lay def defar nga jus de bissap. waaw defar naa jus de waaw defar un litre rek ah. waaw bissap baa ngi tege kinkiliba bi mu ngi tege. waaw non kinkiliba bi il comme que il est dix mun na mun na mun na départ mën naa koy gis nii dégg nga. waaw baax na John. waaw euh, euh, euh, ma ne. Euh, dama la euh, parce que bu ma lekkee mbaxalu xolom xombal bi. waa euh, cere ndimb bi sóoraale nga ko cere bi. bi defar naa cere bi. baase. waaw baase ndimb. am na laurier. am na laurier. mais xol da koy castre ah. waaw am na basante. boo ko castre da ci bind chez la mère. chez la mère pour chauffeur bi bañ a yaakaar na yëpp maa ko lekk ah. d' accord ma ne. waaw supp bi tamit da nga ko ciy emballé. supp bi pare na. ah. supp bi pare na waaw da bind pour secrétariat. secrétariat pour secrétaire yi waaw. mu mel ne chauffeur bi bu ñëwee da koy secrétaire yi yaakaar ne pour euh, kii la suppu tànk la waaw bu mu jaar et puis waxoon na ko euh, euh, monsieur le ministre nee na bu mu jaar secrétariat na ko jaarale ci beneen port bi ah. moom xam na porte bi beneen porte intérieur bi. d'accord waaw kay kii attention ma ne mburaake kii mburu faas bi. waaw defar nga ko ah. waaw mburu faas bi pare na. d' accord waaw defar ma ci 10 rek. 10 10 lu nga bëgg 10 comme que man kese la tey aw ma invité. waaw 10 dina baax ah. d' accord waaw d' coupé. ma ne. waaw kii euh, kii euh, corne boeuf yi. corne boeuf bi. waaw da nga koy sauté. waaw boo ko sotee tuuti nga def ci tuuti soble bu ñorul dégg nga. sote naa ko ba pare ba def ci soble bu ñorul. voilà très bien. Hmm. Euh, madame Diom. na kii ma la fàtte wax tey aw appétit. Ah. Eh, waaw aw ma appétit tey xoolal ñaari brioche. waaw nga may defal benn bi da nga ciy def euh, chocolat. waaw mais tuuti na dang ko ciy cof tuuti rek dégg nga. brioche yi pare na. ah def ko ko. defar naa bien waaw. tag yi moom dama manque appétit quoi parce que dama àndaloon président pour. indi góor yi la moo bariwul waaw. voilà. Mm. Eh, eh, na kii euh, kii euh, kii Maram Diom. naat bi. ah naat bi la naat bi la pentade bi. waaw defal nga ko sote nga ko na mariné naa ko ba sote ko. waaw parce que su ma lekkee pinton akara bi rek après ci laay jëm. mariné naa ko ba sote ko. Mm. waaw d' accord mais mais mais mais madame Diom. Mm-hmm. pour les beignets là. waaw beñe yi su ma amee waaw su ma ci amee douze rek baax na. ma def douze. waa douze parce que aw ma invité pour man kese la. beñe yi naa ko ba ñëw na xaaral ma defaral la douze. waaw na na ah wuy ma. keroog yaa ngi naa ma yaa ngi may defal fataay lacrymogène bi ma tooñ. fataay lacrymogène yi. waaw bëgg naa ci parce que keroog c'est bien sauté là. ah ma defal la si ñaata. defal ma si dix huit. dix huit parce que man kese maa fi nekk. ok waaw kay man kese maa fi nekk. ok ma ma ma ma ma ma ma madame Diom. waaw ma ne. Euh, cere bi est-ce que doo ci boolewaat euh, cere siim. parce que cere xombal bi. cere xombal bi waaw ma dolli ci cere siim. waaw def ci cere siim waaw. Ah, na waaw waaw ah, siimu jën wala bu yàpp. non non non defal cere jën. ma def cere jën. defal cere jën waaw. waaw kon euh, defal ko ba pare. defar naa ko ba pare waaw mais boobu da nga ciy bind pour la pour grand-mère. waaw d'accord waaw pour xam ne pour man la ah. ah waaw d'accord d'accord waaw. d'accord ma ne ma ne. Uh-huh. pour les ca ca carasol yi. carasol yi ak douze banaana. waa jus bi. waaw douze banaana. ak treize pommes yi. waaw da nga koy râpé. da koy mm. dëbb. ko jus rek su ko defee dañ koy euh, du bañ a xam ne man man kese maa fi nekk. defar naa ko ba pare. am appétit appétit euh, que mën nga ma defal ay euh, kii ay ay ay kii bul bu na koy def sauce pare na def ci tuuti mburu dégg nga. pare na waaw am appétit yooyu bu ñu amee ci cinquante bul de bal rek baax na. cinquante bul pare na Euh, madame Diom naam est-ce que mën naa am foofu deux litres euh, kii euh, kii deux litres buy buy buy waaw pare na pare na pare na ah waaw kay d'accord est-ce que yëpp dina xaj ci oto bi xalaat yëpp dina xaj ci bi deux te man rek nekk ah? dina ci xaj waaw kay euh, madame Diop ma coupé suppu bi waaw bi waaw xam ne xobu nebetaay euh, na nga ma ci indi la ñaari casserole dégg nga ñaari casserole te man rek maa fi nekk dégg na Diop te awam appétit tey waaw dëgg la Diop waaw man madame <laughs> <laughs> patron bi ñëw na neex na amul morom sakkan na te sell na pare na ñëw leen añ alaaji ñamal lu bi ceeb ceeb bi wute na parfumé yegsi ceebu patron parfumé daal mooy patron wu ceeb am na ci saaku vingt cinq kilogramme am na tamit ci saaku cinquante kilogramme. mbokk yi am nañu mbégte ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew biiram réew euh, daara internat Cheikh Tidiane Ibrahima Niass de Kaolack sous l'égide du khalife général de la Fayda Tidiani Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass et Cheikh Tidiane Aliou Cissé imam de la grande mosquée de Medina Baye daara internat Cheikh Tidiane Ibrahima Niass de Kaolack ñoo ñuy informé de leur conférence annuelle qui aura lieu Euh, mardi le 11 avril à Medina Baye parrain bi nag di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall euh, ak madame euh, Marème Faye Sall première dame ak Moustapha Ba ministre des finances monsieur Al Hassan Sall gouverneur de la région de Kaolack thème bi nag mu nekk waxtaan Cheikh Ibrahima Niass ak ay jikkoom responsable moral di Baye Thiam Al. ah lan moom responsable moral ci bés boobu groupe Serigne Euh, Babacar si rabia taala anhu ñooy organiser spectacle son et lumière lendemain de la Korité parrain bi di Pape Fara bi nekk fii ci TFM di suñu xarit suñu soppe Pape Fara Ñing yàlla ko yàlla defal jàmm moom nag moom mooy parrain wu bés boobu docteur Abdoulaye Diallo borom Fouta taalibi Sëriñ Touba yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram le docteur international médecin international yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu defal ko jàmm tamit ak xéwal di nuyu tamit suñu soppe bii di Layda électronique ñoom nag wax nañ leen euh, dinañ ma nee na sama sama soppe VDN Mermoz Lo 72 Dakar téléphone di 77 536 45 27 ñoom mademoiselle Sagna ñoo fa nekk ak madame Diagne moom tamit ñu ngi koy ñaanal kenn doolu jàmm foofu nag wax dëgg yàlla nee na ma nag Kouthia balaa rek léegi sa euh, télévision ñëw sa ay vaisselle ñëw say meuble ñëw micro onde ñëw sa aspirateur ñëw may aspiré samay douche nekk sama jàmm te yooyu yëpp incha allah euh, waaw bu bu koor gi passé sax dama fay dem def fa showroom bu tàkk bu waaw léegi douche bi nekk deuxième douche la ma ko bëgg a maa ngi wax ak ñoom tonton Pierre pour jënd deuxième douche bi waaw waaw dama bëgg a jënd deuxième douche trois douche la douche tonton mag ak ñaari douche publique léegi nag damay jënd douche damay jënd douche damay tabax douche si kër jënd ko parce que ñun rek ñun ñun ñun ñun macha allah huit nañu waaw huit nañu te ñun ñëpp dañ koy soxla kon dañoo war am suñ douche bopp <laughs> moom nag nee na dina ma may aspirateur waaw waaw aspirateur yu baax lay jaay dinañ fa dem nag seeti ko yàlla ko yàlla dafa jàmm Serigne Fallou Rahman borom kéemtaan bi américain bi nga xam ne da koo faj barki démba nga xam ne euh, euh, dañ koo anesthésier defal ko ay samp ko lu ne wérul Serigne Fallou Rahman daal di koy jaar ci loxoom mu daal di wér ba ne këng def ay témoignage ci moom Mbagnick Diop bi nga xam ne moom mooy président MEDES def ay témoignage ci moom Serigne Fallou Rahman bii wax dëgg yàlla sénégalais lañ ko téye xam ne nit ku yàlla may la di borom xam-xam bu am solo ñàkk ki ñaan ci xam-xam ak social bi muy def ci li muy liggéey yàlla ko yàlla dafa jàmm join nag day dem cees te bu demee Thiès mooy xale yi ngi doon def examen daaw baccalauréat ak BFM ñoo ñëpp bu sëñ Fallou Rahman ñëwee rek dañuy daw ñëw parce que kum ci ñaanal ci bigg da am waaye ku mu tamit moom euh, moom moom moom moom ku ci faj wax dëgg yàlla boo demee indiwaat ay nit ndax tànnu yàlla la yan na ko yàlla defal jàmm sàmm ko témoignage baa ngi noonu américain baa ngi noonu di wax Mbagnick Diop a ngi noonu di ko gërëm kon yàlla na ko yàlla defal jàmm moom Serigne Fallou Rahman yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram daal di defal li nga xam ne moom la bëgg defal ko tamit jàmm ñuy tamit Abdoul Aziz Diaw nekk tamit grand marabout Médinatoul Rahma quartier bi ñu ko xam ne moo ko duppee boppam di quartier Serigne nekk foon moo taxit moom tamit nitu yàlla ko defal jàmm ma ngay wéyoo ci 77 571 87 63 yàlla gu yaram defal ko ay jàmm yu bëree bëri restaurant la Faris nekk ca ma euh, ca Kaolack ñoom Madiama yàlla na ko yàlla may tamit fan bu gudd ak yor gëram ki nga xam ne nag euh, moom mooy euh, Mbène Amar depuis Washington borom Darmanco shop nekk fi si Padois Buldeuse di jaay ay produits yu mag euh, produits cosmétiques yu mag ak ay lekk yu jóge ca États-Unis moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant képp ko fa dem di nga ko fekk ñi laan nga xam ne moo ko fa toogal ca place ba wax dëgg yàlla boo fa duggee daal Amérique moo lay xeeñ yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak yor gëram mbokk yi waxtaanu koor ci yor koor waaraate jëm ci li nga xam ne nag moom mooy le show bi nga xam ne alaaji aw bilal dina ko def tey ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ak fans yi ndax yi ci boppam wax nañ leen ko euh, conférence yu mag la yoo xam ne tey euh, ñi nga xam ne ñoom nañ ko dara dalee du ay ñeneen ay nit yu am solo euh, di ci di ci di ci nuyu nuyu suñu maman Roqoya Naani Diop nekk ca Sacré-Cœur borom sombi mi nga xam ne tey wax dëgg yàlla bokk na ci marraine yi nga xam ne ñoom ñoo marrainoo émission bii nga xam ne moom mooy waaraate kon mbokk ñu daal di cof li nga xam ne moom mooy son bi rek dem ci li nga xam ne mooy waxtaanu koor ci yor yoru koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ka nekk ca réalisation ba di alaaji Malick Ndiaye mooy yor bouton ya feggoog alaaji Daado Gueye ca son ba moo yor kaddu gi ngeen di dégg munti di ingénieur bu mag ba nga xam ne mooy wax ak caméra robot yi nga xam ne dégguñu olof dégguñu français ay jëmm la yoo xam ne bopp rek la ñu yor ak ay tànk moom munti xam-xamam dafa màcc ci région yàlla ko yàlla defal jàmm alaaji Malick Ndiaye mooy jaxase bouton ya bu xonk ba bu ñuul ba daal di koy jàmb Daouda Gueye daal koy jox kaddu gi mu daal di koy mooñ ba mu mokk daal di koy sànn ci jaww ji daal di koy wàcc suñu téléphone yi ak suñu portable yi waaye balaa ngeen koy seetaan monteur ya monteur ya ñay monté ba mbali di ñu génn ko tafa jum bu moo koy def xale ba nga xam ne moo ko doon def di yuusu bi yaa gi ko yóbbu ngoon sa xam naa ma nga fuñu fu ñaaral Moussa moo fay nekk tamit ñu koy ay ayloo monteur ya ñooy monté mbiri ba mu rafet ngeen seetaan ko mbokk yi loolu mooy télévision waxtaanu koor ci yoor yooru koor bonga kamara madam gay moom ci bari ni la xam nga fa nga doon jaar jaar fa bul batale boo batalee tamit waxal loo batale ñu ngi ciy bég di ànd ak yéen di leen sant di leen gërëm mami Maodo barki démb la doon def anniversaire moom mami Maodo yàlla ko yàlla defal jàmm Mariama Badji représente fi Casamance ak Marietou Diédhiou Ndeye Faye ca Cambérène Khady Gakou ca Diourbel Baye Fall baa ngi noonu dafa jéngu day woor ñaña trian ñaña trian ñaña trian représente fi trian yi jéegu trian bi doom jee doon def anniversaire di Pape Doudou Pape Doudou bu xefee sax ñaña trian de ko ñu ngi waaju baax ji Ahmed Sirara toogal fii ñi nga xam ne moom waaye ngor borom baat wurus ba yàlla ko yàlla defal jàmm sant nañ leen gërëm nañ leen koor gaa ngi dem muy gën a neex yàlla na yàlla defal jàmm may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram gërëm nañu képp koo xam ne yaa ñuy seetaan di ñu déglu mbokk yi may bëggal ñëpp di sant ñëpp procureur Bakhoum mi ñu dénk procureur de la république yàlla ko yàlla defal jàmm commandant Fall moom tamit yàlla ko yàlla defal jàmm ma nga ca sûreté urbaine ñooñu yàlla

oustaz TikTok maa jàpp seen tur yëngal ko mu doon jaan maa fekk ñu xiif ma tëb suuf jox leen ko muy maa dem ba S2 seen o na leen ndox mi dañ cee sonn bës ko mu nekk meew li nekk sokolaa yow ca kaw ca kaw. dégguma de dégguma. ñu may conférence la dañoo ca kaw a kaw. ca kaw a kaw. eh eh eh, eh, eh, eh am xam-xam. da dee ko baaral baaral ko na suufe ee eh, ee eh, ee eh, ee dama ne dama ne suba neexee suba kilo ceeb jar fukki dërëm laaj leen ma nu may def damay dugg bureau Macky Sall waxam moom ne ko Macky loo bëgg mu ne ma toogaat ma ne ko boo bëggee toog dangay def li ma la wax mu ne lan ma ne ko gestu sa gauche mu gestu gauche gestu droite ma jël mandat teg ko ci loo xam ne ko doxal te su ma ko defee dana wàññi ceeb bi ndax xam naa loolu la bëgg bopp yuuxu ca kaw la siis turaanga na waa Ngor génn ñi ngay weel dégguñu la na baat bi naaj na waa Cambérène génn na waa Cambérène génn yuuxu ca kaw na baat bi toj na baat ba toj wàcc ko wàcc ko ca suuf a suuf ca suuf a suuf eh eh eh eh, eh, eh. dee benn bal la bu dee penalty la dugal jàpp jàpp gañe dugal gañe jàpp gañe bii bi baa koy dugal bii bi baa koy dugal dangay tarbiyu dangay tarbiyu naaka saa sambe naaka saa sambe naaka saa sambe dégguma dara nopp bi dafa tëx def ko ak saa samb dégguma la de nopp bu bon bi laa la jox. yuuxul ca kaw. ca kaw a kaw. da ngay tarbiyu. da ngay passé examen. sa kaw a kaw na baat bi dee yuuxu sa kaw a kaw na la waa Tuuba dégg na waa Tiwaawan dégg eh eh dee. minal wara amul laal minal wara. ngeen eh, ne lan. minal wara amul laal minal wara. ngeen ngeen ne lan. minal wara amul laal minal wara. nga suufe suufe. minal wara amul laal minal wara. nga suufe suufe. minal wara amul laal minal wara. eh nga bëse. minal wara amul laal minal wara. nga bëse bëse. minal wara amul laal minal wara. eh dee ko tiire. minal wara amul laal minal wara. eh nañ ko mooñ. eh nañ ko déqi eh nañ ko rusi eh dee ko mooñ nañ ko tiire eh! kon yaa fi ba tey fi ba ey mun di dégguma la ca kaw ma baat ba dee nañ ko tiire nañ ko tiire nañ ko mooñ nañ ko fóot dee ko dëbb dee ko ko mooñ. mel ma nañ ko mooñ. nañ ko mooñ. nañ ko mooñ. yow nañ ko mooñ. yow nañ ko mooñ. yow nañ ko mooñ. dee ko tiire nga ne lan nga ne lan abu bilal nga ne lan jërëjëf sàcc loolu lii mooy la show de Abou Bilal day ànd ak jamono day maase ak jamono dama ne nay saf neex dañuy tàggatoo nag loo yëg ma ne loo yëg bànneex bànneex tiito da tarbiyu ay ca yëkkati waatal sama nopp yi neexul de dégguma la de dégguma la de dégguma la de ca kaw a kaw ca kaw a kaw abu bilal minal wara ca kaw a kaw minal wara abu bilal minal wara tey nga dee Abu Bilal. minal wara. no foora foor. minal wara Abu Bilal. minal wara. waxal sa kaw. minal wara Abu Bilal. minal wara. dootoo ko defati. minal wara Abu Bilal. minal wara. siw mbaa dee. minal wara Abu Bilal. minal wara. siw mbaa dee. minal wara Abu Bilal. minal wara. minal wara Abu Bilal. minal wara. dañuy daaneel fii lañ koy tëjee. ma cof ko tuuti. ma cof ko tuuti. fii la ñuy tàggatoo. Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! nañ ko tiire nañ ko tiire nañ ko tiire nañ mooñ nañ ko mooñ dee ko peñe dee ko peñe durgootul durgootul dee ko ñandu yow dee ko ñandu yow dee ñandu yow yow dëbbal yow dee ko dëbb yow yaa ko moom yow dee ko lii mooy àddina est-ce que xam ngeen ne dama leen doon sport loo pour fàtte seen xiif indil leen bànneex seen xool neex seen sidis daale tàqaytu ko ngeen am mbégte eh xaar minal wara abu bilal minal wara. fi des. na foora foo toogal foofu. minal wara naan. minal wara abu bilal minal wara. yaa minal wara abu bilal minal wara. minal wara abu lay nuroo gunóor. minal wara abu bilal. minal wara di nuroo bëgg suukar. minal wara abu bilal. minal wara kanam gi ne ruquduus. minal wara abu bilal. minal wara jàllal nii balaa ngay dee. minal wara abu bilal.